na baada salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki ci yàlla mbokki dëkkandoo yi mbokki taalibe yi gannaaw bañ sante borom bi subhaanahu wa taala di julli ci sang-sang yi muy muhammad alayhi salaatu wa salaam ñoo ngi leen di ziyaara di leen baalu àq te di leen baalu àq te di leen nuyu nuyug islaam di jàmmi yàlla ak xiwalu yàlla ak barkeem yàlla na ko borom bi subhaanahu wa taala wàcc ci julli ñëpp ñoo ngi jiite suñu ziyaar ak suñu magal di alifatul amma di mohammed al Muntaqa mbak radiyallahu anhu euh na ko borom bi subxaana li nga xamne waye waaye fanam mu guddul temu te mu andak moital. li nga xamne moy mooy tal yomb yalla yàlla yalla ko yalla def ya rabbi ñu ci toftal ki nga xamne moy khalid general de Baye Fall di toftal fay nga xamne yal na leen borom bi dotti la yu lii de kàddu hamne xam ne diis na ci ñun lool pour ñu yëkkatiku mënoon naa ñàkk mais xëy na dañoo yor làmmiñu nit di ko waxee moom rek moo ñu yóbbee lii xëy na bu toogoon wala bu ko nangu woon euh, duñ ko yëkkati mukk ci suñu kanamu kilifa mais di loo xam ne lu mënta ñàkk la ñoo ngi tub bu baax kilifa gi ñoo ngi lay ziar bu baax a baax a baax Mbàkke da jox sa wàccuwaay di la yéegal sa yéeguwaay di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow waaye di la ñaanal borom bi dotti la yiw waaye dotti la li nga xam ne mooy wér-gu-yaram waaye defal la li nga xam ne mooy wërsëg yi àdduna yomb na borom bi yal na ko def yaa bi mbokki mbokki julli ñi mbokki dëkkandoo yi ñoo ngi am li nga xam ne mooy tiis gu métti gu ñu teg mooy toog suñuy kilifa di yëkkati kàddu mooy loo xam ne lu rëy la ci ñun bu mënoon a ñàkk de leneen lañ koy remplacer mais lii de day tiis gu rëy ci ñun ndax kat bu du dara suñuy kilifa lañ te lottu nañ di wax lottu nañ lool di jottale kàddu seen kanam ñoo ngi tub bu baax a baax a baax suñu làmmiñ lottu na di wax ci seen kanam bu ko de dañu wax mais xëy na suñu làmmiñ moo lott pour ñu wax ñongi ngi bu baax a baax di jottali wax ji rek ci kaddu imam xeyna bu fi nekkon wax lu upp li wala bok bu jëlen kaddu gi waye xeyna defé nekkut ñu jëlal ko ko te ñu jàkkaarloo suñu kilifa motax ñu lottu pour wax lolu ñongi ñaan yalla tiway bi togaay bi fi tok ni yalla nako borom bi barkel kep ku fi ñew yalla sa aaju faju bir ak biti yombu na yalla yalla nako ko def ya rabbi yalla na borom bi yokk ñu ma yegg ko yalla ñu borom bi defal jammi aduna ak al-akhirah borom bi ma nak yalla ci rabbi ñoo ngi ziyaar kilifa yëpp yep, yëpp bayu ñu kenn ñoo ngi jéggal bu baaxa baax ci kaddu gi di wax alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh li ak cant la. koo xam seigne Touba lañ ko jaglél ak njobotam ñëw téwé ci ci ko. kon ak sant yalla la bu baax. ñu ñaan yalla bés bi. yal na ko suñ borom guddal. yàlla na ko suñu borom guddal ci katton yàlla yonte bi bala may dem gu ci affaire chef du village suñu rakk la di suñu mbokk te suñu lépp xëy na boo déggee ma di ko présenté ay magam ñoo fi nekkut mooy mag ci dëkk bi it ànd ak Babacar Faye ñuy liggéeyal sëñ Touba loolu moo tax ñu jébbal ma kàddu gi waaye man jegewuma sax chef di village man ab taalibe laa te ñaanuma yàlla jóge ci taalibe mukk ñaanuma ko yàlla yàlla bu buur yàlla defal loola sëriñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm so doom ji nga fekk fii ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax daaw jéeg day dang ko fe pep mu nek ci biti ñu tegal ko bang bi nga ne assalamu alaykum dafa wacc bang bi tok ci suuf tayit ba kasaalika non la serigne ka kérok dafa daanu ak leer ne li rek mo neex ci yoru mourid li dong mo neex ci yoru mourid ku wara jitu day jitu ku wara top day top jëmmal nañ ko encore tey suñ gabu jóob feddi kole kolëri gi ne ki nga xam ne sëñ bi teg ko fi mu présenté sëriñ bi fii ci jamono fii fii ci nguy fii ci euh, ci ci Fatick département Fatick yëpp loolu du lu yomb kon suñ gabu jóob bu yëkkatee kàddoom encore jox ko ko ba léegi mi ngi dox ci taalibe ba léegi mi ngi dox ci taalibe ah yal na ko buur yàlla jàppale mu ñëw nag ci Alaaji Babacar Faye dañ ne nit buñ ko nee dafa baax wala def ne ndax ay bokkam a ko wax ndax ay bokkam a ko wax dinaa tuuti golo gi bi mu duggalee doomu aadama bi ci toolam yàqu ko borom tool bi def ko jàpp ne ko tey ma rey la mu ne ko déedéet boo ma reyee sañ bokk dañ dañ la tuumaal te man maa la tooñ waaye damaa bëgg ma woo samay bokk ñu ñëw nga soog maa rey bal bal nga may rey nga wax nga li nga danaa wax li nga xam ne moom nga moom nga def moom nga ma def boo ko waxee pare nag nga rey ma ci seeri nit ak mbokkam golo gi ñëw ànd ak bokk yëpp ñu ñëw ne borom tool bi seetal ki la yàqal mu ne ah yéen ñëpp niroo dem leen mu xaw ma ci kenn kon loolu ak mbokki jariñ Alaaji Babacar nag mi ngi ànd ak ay bokki dëkkandoom ànd ak ay bokki taalibeem di liggéeyal sëñ Touba Alaaji Babacar Faye mi ngi ànd ak ay bokki deretam mi ngi ànd ak ay bokki deretam di liggéeyal sëñ Tuubaa xëy na ay bokki deretam ñi mu nàmpal ween moom moo ci gën di tuut tànk waaye jox na leen cër boo xam ne cër njuréel la ñu walbatiku ko cër boobu walbatiwaat ko jox ko Babacar fay ne ko yaay suñu lépp amuñu kenn ku dut yow bëgguñu bépp bopp metti la kon loolee ànd ak mbokk moo ko tax rawatina nag ay doomi boppam yi nga xam ne yàlla moo ko ko jagleel jaarale ko ci loxoom lu Babacar fay bëgg moom la njaboot googu bëgg lu Babacar Faye bëgg moom la njaboot googu bëgg yal leen buur yàlla yokk yal leen buur yàlla yokk leen buur yàlla yokk ndax nit a ngi fi jur ba pare bëgg lu baax te sa doom jooje bëgg awut yoon ba nga aw yaatu na fi de waaye nag jur doom ba pare la nga bëgg mu gën la koo bëgg foo ca toll mu ne la nañ dem na ah, doom jooju ñaanal yàlla rek ci gën yàlla na bur yàlla li ñaan gi nag ci kattanu yàlla ndi yaag ñi nga àndal ci liggéey bi yëpp ñu ngi leen jaajëfal baax sëriñ maam sëriñ mi ngi nuyu bu baax doomam sëriñ basiru moom alaaji baara nekk ci biir nga xam ne at bu nekk moo ko daa ànd ak sëñ Babacar ba mu gën a ba mu daa gën métti gën a jafe sëñ Basiiru moo daa jóge mbuur ànd ak ay taalibeem saf ay baasam saf ay cinam lépp mu ñëw def ko ba xëyoo àndamaat boobu wetoon na lool métti woon na lool jafe woon na lool kon sëñ Basiiru ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci taxawaay bi sëñ maam sëriñ damay wax faral di wax toujours ne waa kër alaaji baara dañoo am ak taalibe koo ci daje ku nekk day fàtt ne sax moom Mbàkke sant wala ci njaboot gi la bokk ngir taalibe ak pas ba kon ñoo ngi koy ziyaar baax ci taxawaay bi di ko jaajëfal baax di ñaan yàlla yàggal yéeneem sëñ Babacar nag fu ñu bëggoon a dugg nga bëggoon ñu dugg xëy na waxtu wi duñu ko may waaye ñu junj rek ceeg tuuti li ñu mooy lan mooy fiñ ñu woo ak liñ ñu woo kooku mooy kan mooy Serigne tuba kooku mooy kan mooy Abdullahi kooku mooy kan mooy xaadimu rasulullahi Serigne Touba moo wax ne darajati kaw nii Abdullahi xadimu Abdullahi ibnu Abdullahi. sama daraja sama maqaama mooy yàlla dafa maa def ma nekk Abdullahi nekk xadimu Abdullahi nekk ibnu Abdullahi yooyu bu ci nekkoon daween na sëkk daraja ci ñu wuj yi Sëñ Tuubaa te xam na njariñ rek la làq àddina ak alaxira ba ci njëkk mooy buñ ne Sëñ Tuubaa moo nekkoon Ahmadou Bamba rek di doomi Maamoor Ansali la làqoon lépp luy daraja la làqoon lépp luy maqaama la làqoon lépp luy ngëneel Sëñ Tuubaa day wax ne ba muy nekk ci daaray Maamoor Ansali ja ñu naan ko alif laam miim booba la àggoon ci maxaame wëliyu yàlla ya la ci tegoon yëpp ay maxaama la ak ay daraja yu mu doon jéggi waaye la ko taxoon a jëg nag mooy àgg ci darajaay xadiimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loole lan mooy njariñ li mooy yëg ne njaboot gi mu bokk askan yu mu bokk mooy ki war a xetti mooy ki war a ramm mooy ki leen war a defar loolu moo tax Sëriñ Tuubaa bi mu ne dëgmal àddina amul benn itte benn bëgg-bëgg lu dul yàlla subhaanahu wa taala suñ Muntaxaa day wax ne sëñ Tuubaa bi ñu ko xamee ba ba ni fi jógee ci yàlla rek moo sa nekk musa nekk ci dul yàlla mu mel ne da doon mar yàlla di ko wër ci barab yu nekk ci waxtu wu nekk ci yëngu yu nekk loolu moo tax lépp loo xam ci lu baax ci réew mi ak bépp tarixa ak bépp kër bu naan la daa baax ci réew mi sëñ Tuubaa la fa baaxoon jël na ko mboolem wirdu yëpp jaar na ca jaar ci wirdu Tijaan jaar ci wirdu Xaadir jaar ci wirdu Zazali te wirdu bu ci nekk dan na ba ne radiya anni sibtuwul jilaani rabdu anni sibtuwul tijaani radiya anni abul asan mooy ñoom ñëpp làq na seen ngërëm wirdu wu ci nekk sëñ Tuubaa àgg na ci koo xam ne kenn mosu ci àgg ku du borom wirdu wa wirdu yooyu nee na dem na ba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ko joxal boppam muy am sañ-sañu di joxe wirdu yooyu moo tax sëñ Tuubaa ni muy joxe wirdu murid noonu la doon jox wirdul xaadir noonu la doon wirdul xaadir noonu la doon wax wirdu dazali am na ci mag ñi boo demoon ku mel ni maam Thierno sëñ Tuubaa wirdu xaadir la ko joxoon ku mel ni sëñ ki amul ah, ñang sëñ Tuubaa wirdu tijaan la ko joxoon nga xam ne wirdu yëpp amoon na ci ndigal amoon na ci xaas diko joxe ba yàlla xëy jox ko wirda bopam motax seigne basir di wax ne wa in akhasta wirdal khadim akhasta wirdal jami la taxaafu kapta seigne touba neena seigne basir neena so beugé nek bëggee wala nga bëgg nek khadir wala nga bëgg zalzali wala nek bëgg nek kunti wunti nek mourid seigne touba basir neena Basiru wirdu murit rek boko ko nek nekk nga mboolem wirdo yëpp ndax lépp luy mbóot ma lépp luy daraja lépp luy maqama seigne touba yàlla defal na ci lolu motax mu teel wër mbolam barab yoy ci jamono yooyu kum yegna lu bax ma nga fa fum yegna aw yiw ma nga fa fum yegna ak leer ma nga fa mu lakh ko motax mu ne man lam yakun yarda anni fal karim radi anni ridan lay sérim dem ba lakh ngeureumal sahaba yi dem ba lakh ngeureumal rasulullah sallallahu wasallam wa yàlla mi nga xamni moy borom lépp geureum na ta yàlla nak ëllëg yomal khiyam maqama ba gën a dara ji gën a moy am ngeureumal yàlla subhanahu wa taala waye mbokk yi loolu lu ko may moy pass pass loolu lu ko may moy itte loolu mu lu ko may mooy dëgmal yàlla waaye jaare ko ci buntab rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ci sallallahu alayhi ci bopp ma waxoon ne tuuba liman balaxa mi ata raabi ata baadal alfi buñ demee ba yonent bi jóge fi ba am junni at ak ñeent téeméeri at am na koy feeñ tuuba texe ñeel nañu jamono to ñooñe ci jëy sasin bi suñ tuuba feeñee moo tolloog téeméeri junni at ak ñeenti téeméeri at gannaaw faatoog rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ tuuba nag bi mu dëgmalee moo xam ne buntab yàlla muy rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu dëgmal ko ci lépp imam benn itte benn pas-pas lu dul liggéey rasulullah lu gën a jege rasulullah lu gën a taq rasulullah lu gën a féetoog rasulullah mu di ko ittewoo di ko xentu di ko mar mu ne day mel ni sori naa loolu yonent sallallahu alayhi wasallam day mel ni sori woon na ko ci distance day mel ni sori woon na ko ci at ndax ni ma wax sànq mooy téeméeraat ak ñeent fukk mu doog a ñëw doo a feeñ kon day mel ni sori ko ci distance waaye sori na ci li nga xam ne mooy distance te mooy yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga Madinatu Munawwar mooy mu nekk fii ci Touba kon lan mooy tax fam la mu bëgg am ci moom mu am ko mooy pas-pas ak itte bu jurëy yoo xam ne dem na bare loolu mu doon wër ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci ay maqaama ci ay daraja ci ay pas ci ay maqaama dem na ba am ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam loolu moo tax mu ne yuzayyiruni kal ali wa sahbi sarmada bi kuntu za xurbin wa xad kuntu za nahyin nee na dem naa ba jege rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ba mel ni saxaaba ya ba mel ni waa kër rasulullah sallallahu alayhi wasallam doonte nekkoon naa démm ku ko jege ku ko sore woon lool waaye tey mujj naa doon ku ko jege lool loolu nag dafa dem ba àgg far mu dëkk ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu njëkk danoon wax ne uxaatibuhu bil maddi woo woo fii Tayba damay wax ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam dama nga Madinatu Munawwara waaye mujj na nee na rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci boppam ñëw dëkk ak man yu zayiru nii kal aali wasaabi sarmadan moo tax mu ubbee sànq بيد يوي مي واخ جاورت نان جاورت بالفرخاني ربي المعين ملكت نفسي وساسات لاين موي دكنا اك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت سورنا لب لو خاني موي شيطان سورنا لب لو خاني موي بكان واي ما مجي يجاورو ني كلي قديما له به به به سر قرب وقال كنت سانحي مجينا دك رسول الله صلى الله عليه وسلم سما لب دي تاكو رسول الله سما لب دي نك رسول الله صلى الله عليه وسلم لول موتاخ دمنا بنا وال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيتنا سار احمدو bis nee na yonent saasam ñëw na fi nga xam ne mooy njaareem am fukki fan ak juróom yoo xam ne génn ak man ci kër ci kër gi kon dëkk naa rasulullah saasam waaye dem na ba ne nu suba ay nii waxtu wu nekk mi ngi tegu ci rasulullah sama bët yi waxtu wu nekk mi ngi jàkkaaroo rasulullah sallallahu alayhi kon dem na ba nekk lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne xadamtuhu xidmatan laa saaniya lahat min al xidma laysat faaniya liggéeyal naa rasulullah sallallahu alayhi wa liggéey boo xam ne première la bu amul deuxième adduna course boo fi dégg buñ na diw moy premier dañ nan diw moy deuxième dañ nan diw moy troisième waye Serigne Touba bimu xasse nek premier première nee na am deuxième ati to xadamtoo xidmatan laa saaniya lahaa minal xidmatan laysal faaniya loolu lu ko may moy pass pass lolou lu ko may moy itte lolou lu ko may moy deug ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam mbokk yi lu may wax lolou moy junñi naa sànq na Serigne Touba day digganteem ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam junni at ak ñeenti témèr Serigne Touba day digganteem ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam Makka la ba diggante Sénégal la ba arab Saoudite waaye ñun mbokk ñi suñu digganteeg sëñ tubaa ñaata at la suñu diggante sëñ tubaa ñun ñii waxuma la ñu fekkoon lu jamono sëñ tubaa ñun ñii suñu diggante sëñ tubaa ñaata at la matagul téeméeri at bu ñu àggee ba 2027 suñu diggante sëñ tubaa lay doog a mat téeméeri at te sëñ tubaa moom kam doon liggéeyal matoon na junni at ak ñeent téeméer waaye pas-pasam itteem may ko mu am ca loo xam ni saxaabatul kiraam lañ ca amoon waa këram lañ ca amoon góor yàlla lañ ca amoon ahlu badar lañ ca amoon muhaajirun lañ ca amoon suñ tubaa nee na àgg na ci maqaame sahidallahu bi anni waahidun min ahli badar wa inni la mujaahidun nee na yàlla seere na man sëñ tubaa ci waa badar laa bokk loolu maqaama loolu pas la loolu daraja la loolu nag li muy ñun ñii kon su fekkee barki démb fi jóge matagu téeméeraat su fekkee sëñ tubaa ne mën nañoo wax ne barab bii la dëkkoon suñ fekkee sëñ tubaa mën nañoo wax ne woon su fekkee sëñ tubaa mën nañoo a la mooy pas-pas yi moo des mooy itti yi mooy des mooy taxawaay yi mooy des moo tax na jot na sëkk sëñ Fallou danaa wax ne ki ñu am kenn amu ko sëñ Fallou danaa wax ne kii ñu am kenn am na ko nan la ko nikk nan la ko taraliis nan la ko téye suñu fukki loxo ak juróom ndax kenn amu ko rek ci réew mi mbokki sëñ Tuubaa buñ ko amu doon ni ñeneen ñi def dañ dem ba Faas di dem ba Baxdaad di wati ko koo xam ne mooy suñu wasi la waaye boo fa gën a fu kontee léegi bu la neexee nga fanaan di sëñ Tuubaa moo tax sëñ Ibrahima Diop daa wax ne maali li من بغداد ولا فاس ولكن بروح يا جلف قد بهت انفاسي ايس الخديم هوا ايس المريد سوا سرون يطهر مريدا بادناسي نانا بغوت ما دم فاس بغوت ما دم بغداد فسن توبا نيك اك طالب سن توبا لا بغ دم ندخ بو دمي لب لو ييو لب لو خيو لب لو بارك نغ فا ام لول نك سن توبا موكي وين يور رك لا نيو ديفال موي ليغي سن توبا ندخ موم نك لم ام تي ليغي رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكامي تا دا لا واخ فصحابه يتغو رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفا تك ma def le ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam defoon saxaaba ya sëñ Tuubaa li mu bëgg ci ñun mooy ñu mel ni saxaabatul kiraam nan mel ni Aboubacar nan mel ni Ousmane nan mel ni Usu Ali Ousmane Aboubacar Ousmane Ali mbokk yi fan lañ féete Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jëlal naa bi ñu bi mu dund ñu ànd ak moom nga xam ne bëgguñ dara moomuñ dara amuñ dara lépp lu ñu am jébbal nañ ko rasulullah sallam na nga koo jébbal seen bakkan na nga koo jébbal seen alal na nga koo jébbal seen njaboot rasulullah fu mu joxoon fa la dem donte dee la ñu jàkkaarloo dee dañuy pare joxe seen bakkan ndax wóor na leen bu ñuy bu ñuy faatu aljana lañ jëm waaye mbokk yi maqaama yañ ci amee ak dara dañ ci ame murit bu ci àggagut mooy sa liggéey sëñ tubaa def na ban maqaama ak dara lañ ci am mooy la rasul la sëñ tubaa wax ne axdimuhu ila duxuli janna daarul xaraari wal munaa wal mina sëñ tubaa nee na moom moom sëñ tubaa day liggéey rasulullah sallallahu alayhi wasallam di ko liggéeyal ba biir aljanna liggéeyal aljanna biir biir aljanna du tax mu bàyyi liggéey rasulullah sallallahu alayhi wasallam xam nga li ñu tudde jaamu yàlla ëllëg yomal xiyaam nit dana ak sa bëgg a julli ne ñun la jaamu yàlla jeex na waaye sëñ tubaa nee na moom ba baa muy dugg aljanna day liggéey rasulullah sallallahu moo tax ëllëg yomal xiyaam fa sahaaba yee mën a féete rasulullah sallallahu alayhi wasallam ku fa munta féete sëñ tubaa dafa gënoo dara sëñ tubaa fan la sahaaba yi di féete rasulullah sallallahu alayhi wasallam ëllëg mooy ko xeetam yi dugalal ko aljanna sëñ Tuubaa nee na ci muqaddam ci muqaddimatul amda Ousmane yasoo xamsiina alfan wa kullun aqhum naarum Ousmane ëllëg dana ramm juróom-ñaar fukk junni at juróom-ñaar fukk junni nit yoo xam ne ñëpp sawar lañ waroon jëm te saxaaba di kiram yëpp loolu lañ ko defee kon taaliba bu ma taaliba mooy ëllëg du rek sëñ Tuubaa dugal aljana waaye fooy féetal sëñ Tuubaa ci taaliba yi sëñ Tuubaa yi mooy fexe leen ramm dugal ci aljana loolu nag fii lay commencé fii lay commencé nu muy commencé fii mooy li nga am li nga man li nga xam nga liggéeyal ci sëñ Tuubaa ci taaliba yi sëñ Tuubaa yi ki taq leen ci teg leen aw yoon ki taxawu leen ci ànd ak moom di liggéey sëñ Tuubaa mbokk yi ku lay woo ci liggéey sëñ Tuubaa kóor rek moo bëgg mbokk mi gën a mat mbokk mooy ki nga bokk ak sëñ Tuubaa mbokk mi gën a mën a mbokk mooy ki nga ànd ak liggéey sëñ Tuubaa moom la sëñ Tuubaa wax ca ca uqane wa rufqatun wa hiya ixwanun lahum imamun mbokk yi la yàlla subhaanahu wa taala ngay bokk ñoom di ànd ak liggéey mbokk alaa jigéen jaay du su day wax lu mel noonu day wax ne am naa sama mbokk lool yu ma jege ci deret waaye yéen ñi bokk sëñ Tuubaa yéen sama mbokk ndax ñooñu ëllëg yéen a place bu nga nekk mbokk yi taxawaay boobu nag ñi ma bëgg a waxaat kon mooy waa waa waa siin ñi ma bëgg a waxaat mooy waa nguy rek waay li ñu woo nañ ci wuy te xam na kat olof nee na seetaan ñeetaane kuy seetaan nit ëllëg ëllëg la da da ñeetaane ndax lépp lu ñuy xéewaloo aljana fii lañ ko liggéey sëñ Tuubaa nee na aqastu min dunyaawu zaadi lil jinaan wan xaada lil hawa wali safal jinaan bi ngay nekk àddina as néew diir bi fi am ci ngay liggéey la ëllëg yowmal xiyaam loo xam ne bu ëllëgee fu waaye taxaw di liggéey rasulullah fu waaye taxaw di liggéey la xaalis nga mën faa taxaw loolu nag ab liggéey la boo xam ne mbokk yi du julli rek du woor rek du natt asaka rek ndax loolu ndigalal yàlla la julli woor natt asaka dem màkka taxul nga gën kenn taxul nga gën kenn taxul nga raw kenn taxul nga man kenn taaliba lan lay rawee ak moroom taalibam mooy ci liggéey Sëñ Tuubaa ku la ca gën a sax ku la ca gën a jiitu raw na la Sëñ Tuubaa ba faw te Sëñ Tuubaa la ba mu ñuy wax liggéey Sëñ Tuubaa dañ ne inna alladina saaru fi xidmati fa la umu diyaar wasa jannati wax di awaa jël lazina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu sëñ tubaa liggéey sëñ tubaa dana dañ cay sax waaye dañ ciy njëkkalante dañ ciy njëkkalante kenn du xaar ku la ca woo kenn du xaar ku la ca boole kenn du xaar ndax bokk naa ndax bokk naa ci daay ndax bokk naa ci mboolem mu déedéet wante da ngay yëg na lii kat buntu buñ mën a liggéey sëñ tubaa la mu jaral la nga def ci sa alal mu jaral la nga def ci sa coona mu jaral la nga def ci sa xam-xam te xam ne ëllëg sëñ tubaa moom ñàkk lay fay sëñ tubaa ñàkk lay fay am na kilifa gu daa jóge Saalum ànd ak njabootu ak ay taalibe yu bari ñëw fekk sëñ Touba njaareem indil ko addi yu bari bi mu ko joxee addi ba pare daal dina sëñ sëñ Touba damaa bëggoon na nga sama doom ji sëñ Touba na ko ñàkk yi nga ma indil day gisuma ci sa doom ji su ma li li ma lay war a jox su ma ko joxee sa doom bi ñi ñàkk-ñàkk yi dama koy def muy wan ne sëñ Touba moom jaawalul ñàkku kenn ak kenn te nag mbokk yi day mel timis bi nga jot waaye li ma bëgg a wax mooy kaay leen ñuy liggéey sëñ Touba nekk Alaaji Gaye fekk la ca sunu mbokk jàng yi ya nekk ca fatik sunu amee seen xew yooyu mu war caa tàbbi day jël enveloppe def ca lam cee def jox ko comme ko war a jox mu jox leen ko kon jëmm ji dañ koy ñaanal sunu borom yàggal ko fi ndax li tax sëñ Moustapha Basir yëkkati ko teg ko ci biir Fatick dénk ko ko mu ànd ak talibé yi sumb sumb bu rëy kër Serigne Touba daaray Kamil sëñ Bass Abdou Khadir ñëw teg xeeru jumaa am ay dëkkuwaay yu ñu fa def ñu war a tuddee ñaari dëkkuwaay yi Buur Sine ko mën Ndofène yeneen ñaari ñu tuddee ko am Cheikh Fall mu doxee fa dafa ay kër gan nga ne tey mbàkke mbàkke yi suñu sang yi ndax ñoom dong lañ am képp ku ñëwoon kër Serigne Touba dinañ la dalal foo xam ne ab pale lay doon ña nga àndal ñu dalal leen foo xam ne day mel ni pale ba mu nekk kër goo xam ne kër Serigne la muy kër Serigne Touba goo xam ne amul benn. leeru Serigne Bamba booy dajal muy doom wala sët mu ne dama koy donn ndax Cheikh moom la Mountakha Mbacké won nañu yoon wi ñoo na Fatick fekk bërëb boo xam ne ñëpp xam nañ li mu doonoon mu nekkoon ci ay loxoy juif mu jël ko ci ñoom 17 millions def fa mburu teg fa kaar bu yóbbu yi ñuy dem Dakar di ñëw def fa njànguwaayu Alxuraan teg fa xeeru jumaa jël jëmbam ji toog muy maam Serigne Mbacké Mountakha yal nañ ko fi yàlla yàlla bàyyi yàlla yàggal ko fi mu wér lool ci kanamu taalibe yi mu ne ko sii na ngi noonu say loxo jël kër ga tudde ko wax fulaa Cheikh Mbacke Ndaw a ngi nii amul kenn koo xam ne leeru sëñ Mourtala nga ngir war a mën a ñëw foofu ne dama jël institut al azhar def ko titre foncier jaay ko kon Cheikh Moudou Mourtala lim liggéey ci yoonu lislaam fii ak li ko wër yàlla ñu ko yàlla fayal kon nag dañuy jël kàddu yi jébal ko jëmm ji nga xam ne mooy Alaaji Guèye Dieng mu am ay kàddu yoo xam ne da koo yëkkati jëmale ko ci jaami di wax ci ndigalu jëm ji tok, Mbàkke Murtada yaatu borom tol baangi ni yow ra tol yow dakal bay ki dakal ganaar yi ji kon ala yalla fayal momit yalla yàlla ko fi momit mu yag fi lol te andak wer nak day bañ ko joxe khalifa gi ba legi maam lim ci jego ni rek la koy jappé tay fi suba fele te lolou dañ koy ñaanal mu wer nak mu mën ko dox allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin ñi ngi sant buur bi yàlla subhaanahu wa taala julli sëlmal ci ngeen ngi mbindeefi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di sant di gërëm di jaajëfal sunu jàmbaar ja xaadimu rasulullahi maam mi maam Serigne Mbacke ibnu Serigne Mouhamadou Moutada Mbacke Serigne Touba Cheikhul Khadim Serigne Bamba yàlla ñu ko yàlla fayal ñu ngi sant sunu borom geneen cant gannaaw boom ñu defee mbindeef ñuy bokk ci xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu def ñu ay jullit waaye def ñu ñu doon taalibey cheikhul xadim Serigne Touba geneen cant la gu ñu yoral suñu borom ci loolu ndax yombul jërëjëfe yàlla di jëfal sunu jàmbaar ja Cheikh Ibrahima Fall làmp ak mboolem Cheikh sëriñ Touba si yàlla fayal ñu leen barke Cheikhul Khadim sëriñ Babacar Faye ñu ngi lay nuyu nuyoo boo xam ne sunu xol lañ ko jëlee di am mbégte di am cawarte jóge fi ñu jógee ñëw fekk li ci dëkk bii waaye li ci neex. mooy biñ ñëwee ci dëkk bi di la seet si kiñ fi fekk mu bokk ci ñun muy Serigne Cheikh bu Diop mbégte mu rëy la ci ñun ndax wéttal la ci ñun mbokk la ci ñun dëkkandoo la ci ñun àndandoo la ci ñun wóllëre la ci ñun xarit la ci ñun te ñu xam ak bëggam ak cofeelam ak dëggoom ci bëgg sëriñ Bamba ak ñi mu àndal kon sëriñ Babacar ñu ngi lay yóbbanti nuyoo di ziar ci sëñ Basiru ibnu sëñ Bas ibnu sëñ sëñ Baara Mbacke ibnu sëñ Mouhamadou Fadal Mbacke ibnu Xaadim Rasul fekkoon nañ ko fi daaw ak daaw jéeg te xam nañ seen diggante xam nañ diggante ma ñu ngi lay yóbbante ziar ci moom di ko ñaanal tey sàkk ci tey sàkk moom ñaan ñu ngi nuyu baax di bedal nuyoo sëñ Mbaalo sa waxtaan macha allah ab soññe la te dina yokk pastéef ndax dafa baax taali bii xam kan kan mooy Serigne Touba sëñ Ousmane Diop nuyu nañ la di nuyu imaam di nuyu boroom dëkk bàyyiwuñu kenn di beral nuyoo soxna yi seen jataay bu rafet bii yal na yàlla fay leen te barkeel seen njaboot barke boroom Touba sëriñ maam Serigne Mbacke ñu ngi sàkku ceew ñaan. ndax ab yan ki ko yen moom la moom li nga yenu bu defee léeg-léeg mu ñëw nemmeeku la nekk sa wet war nga yokk sa yaakaar war nga laxasaayuwaat takkaar sa ndigg te gën góor góorgóorlu te xam ne yaakaar nga ci ragaluñu dara nag tiituñu dara ndax yàlla mi amul kumpa seere na sa maam rek lañ bëgg suñu xool bi moom rek moo ci nekk jataay bii ñu toog dend yow toog ci kaw nga toog ci kaw ñaari mbir dal nañu ci bi ci jiitu mooy ñàkk nekk li tubaab jox wax à ndax bëgg gi bëgg sa maam waaye beneen bi li ñu ci mettre à l'aise mooy dañu yëg ne xam nga cër biñ ma jox ma nekkal fi sa maam ci tund wi te sa maam kenn du ko suufeel ay darajaam weesu na dara daraja nit ñi ay maqaamaam weesu na maqaama nit ñi kon jox ko cër tax na bu ma ñëwee toog ci suuf nga na ma toogal ci kaw sa maam jooju yal na la taxaw yal na la sigil yal na la sagal yal na la darajal ñi ngi sakku cëw ñaan ndax mbolo muy ñi andal bo xolé tay ci nga xam mo waral bes bi muy sëñ babakar fay sëriñ mi nguy gi fi moy sin jaamu fi yalla yombul ligel fi sëñ bi yombul waye passef pas-pas ak bëgg ak moy jappata bayyi moko may li mu am lepp lu ñu wote ci fatik kenn du ko ci jiitu mu ànd ak mbooloo mi mu àndal ñu ànd bokkandook ñëw ñun di liggéeyal sa maam kon boo fi nekkalee bu ñuy dem Touba nga teeru leen teral leen yóbbu leen ci sëñ Muntaxal Bachir bu lii amee nga ñëw teew yokk na sunu yaakaar ñu ngi sàkkuwaat caw ñaan Mbàkke ndax liñ am yéene mooy liggéeyal sa maam rek bëgg sa maam rek te mag ñu baax ñi fi nekkoon dafa am lu ñu fa bàyyee loo xam ne ñun li ñu war mooy góor góorgóorlu ba ñoom ñu xam ne bàyyiwuñ doomu yaafus ci gannaaw moo tax Fatick ñëpp di jàmbaar ñëpp takk seen digg loo woote ñëpp jóg dugal seen loxo ñëpp jàpp ci ngir bëgg a liggéeyal sa maam rek. Euh, yàlla dafa dogal taalibe yi ni ñuy dundee kenn ku ci nekk ñun am nga bunt ci Serigne tubaa am nga kër goo ziar waaye. kenn ci bunti kër yooyu bu teewee day mel ni ñëpp la teewal. yoon way doxee noonu sëñ Basiirou Mbacke ibnu sëñ Baara Mbacke ibnu Mouhamadou Fadal Mbacke ibnu Serigne Touba gis ngeen ni mu effacé woo xam na ne kilifa mu fi nekk donte la ci Zahir sax mun na am mu mag waaye yoon way doxee noonu. sànq sëñ Saliou daf may déy na ma li may wax ci sëñ maam sëriñ naa ko waxaat ndax waxuñu dimbale gi mu leen dimbale. wéttali gim leen di wéttali ñaanal gim leen di ñaanal waaye mbooloo mi ñu àndal bu ñu ko fekkee Touba daf leen di teral teral ba ñu rus ba nga xam ne teraang bañ fay fekk ñoom duñ ci mën dara ba bu ñii fa lañ koy bàyyi kon Mbàkke loolu yàlla yàlla fay la ko ma bëgg a wax rek ne fii ci nguy réew mi ñu nekk muy siin nga xam ne liggéey fi yombul waaye dina yomb ndax sa maam sëñ Babacar mii wax nañ ko léegi ci gannaaw kër gii nga xam ne da ko def tracé ko miire ko def fi daara tudde kër sëriñ Touba léegi rek incha allah yàggatul goudron dana jaar fii ci buntu kër gi jógee Fatick jaar Nguy jëm dëkk ba jaareer kon ba joyin jaar noonu yegg Bambey kon ne dem ba Ndar léegi rek waaye su boobaa jamono di dox bu ñu naan yooyu mais Serigne nan la defa bi ville bu toll ni nguy mu am fa kër gu toll ci nekk nii ci digg dëkk bi ak ni mu toll nii fekk ne am na Serigne Touba Babacar Faye moom tàggatoon mu ànd ak ay bokki taalibe ca jamono ñu yàgg gëm yàgg bëgg doxoon ko jamono joojee loolu yàggatul moo tax li jafe mooy mooy sos te Babacar def nga ko 33 daayira def benn fédération ñun bu ñu wootee bëgg laa gis ak sa mbooloo te mosuloo cee yaafus lu coono bari bari bari bari bu luy xewee ñu ñëw yàlla dimbali ñu nag defal ñu sakk ñuy tuiteeroo sëriñ maam sëriñ mu ànd ak ñun ñu fekk si la kon na nga xam ne sëñ Babacar lépp loo nekk danañ ci ànd ak yow kontaan nañ ci yow nawle woo nañ la sunu mbokk nga sunu dëkkandoo nga sunu xol set na ci yow waaye la ma waxoon keroog ca dëkk ba poxaam ñun dañuy santaat yàlla bi ñu yàlla féetalee siin sunu borom dimbale ñu sedduñu sëriñ Mouhamadou Mourtada Mbacké sëriñ maam sëriñ ñuy yóbbante ziyaar ca sa sëriñ ba sëñ maam Mor di ñaan taxawaayam yàgg te mu daje ngërëm waajur mu baax wa ngeen ne ci gannaawam jële yóbbante ziyaar ci sa mag ju baax ja sama sëriñ di sama bunt sëriñ Tuubaa sëriñ Abul Baraka yàlla yàggal taxawaayam di wax rek ne loolu yëpp su amee ci siin cawarte la ci ñun ndax yàlla dimbali nañu bañ am sëñ Mouhamadou Moutada mu dimbali ñu boole ñu ak yow seetaanuñu tànqam lu wooñu ñuy am mbégte di la gis saa ci suñu wet bisu tey bi firnde li ci liñ rafet njort mooy sama borom danañu dimbale bañu ñu daje ngërëmu sëñ Touba te ñu ngi ci liggéey boo xam ne sëñ Babacar la ma waxoon keroog ca Poxam. waa ju baax ku mag yar koo xam ne kii ay waajur wala ay maam ku jege war Serigne Touba lañ lam ma waxoon man firnde bi ma gëm ne li Serigne Touba wax dina am te Serigne ko wax ci Cheikh Gabou mii lay xool xool Cheikh su baax si mu àndal ñu ay bokkam di ay dëkkandoom ñu nangul ko bu joxee ndigal ñu jëfee su bàyyi ñu tere bu toogee ci kaw ñu toog ci suuf te ñu bokk deret bokk dëkk di ay bokk nga xool li sama borom def ci Cheikh Ndigal seen ku dem Njaambur Siin xam ne Touba nga nekk ca njaboot ga ca dëkkuwaay ba ca jumaa ja ca jataay ba ca waxin wa ca doxin wa te jëlewu ko fenn fu dul ci sëñ Ismaïla Diouf ñii kenn santu ci Mbàkke kenn santu ci Buso waaye li ma bëgg a nettali foofu mooy la waaje waxoon ne mag mu baax ko waxoon ne sëñ bee ko waxoon mooy jamono ngi ñëw yàggul dara sirru bi yàlla def ci shérif si shérif si mooy ñi sant ay daal nga xam ne ay ay descendant yonent bi lañ sirr boobu séeréer yi ñoo koy mujjee kon loolu gis naa ko ci ci ci sëñ Cheikh Gabou Diop mii gis naa ko ci Cheikh Ndigal Sène ci sëñ lu juuf ak li xew ci siin ci sëñ Babacar mii ñu xam ne kay séeréer si kenn gën leen bëgg Sëriñ Tuubaa kon nag ndokk ba ñu di ay séeréer dëkk siin sama borom dimbale ñu ba sëñ Mountakha Mbacké ñëw defar ñu bàyyi ñu sëñ maam sëriñ mu ñëw di ñu wettali Mbacké ñu ngi sàkku caw nga ñaanal ñu ndax bëgg gi foo ko natt wees na ko sama am liñ ko bëgg kenn mënu koo peese yéen bi ñu am pour liggéeyal ko kenn xamu nu mu toll te jamono jii dafa laaj nga am wéeruwaay am as tuut boo amee yéene mën koo mottali te ñu am yéene liggéeyal sa maam naan bii ñu naanal sama kër sëñ Tuubaa ci Fatick am ko yéen ci région bi yëpp ñu ngi sàkku sa ñaan Mbàkke ndax sama borom defal ñu taw féex tal ak fekke xéewalu yaatu bañ mën liggéey sama maam ba am ngërëmam ñi ngi sant di gërëm kàddu gudd gudd maa ngi jéggulu ñëpp di tàllaat sama loxo ñëpp di wax ne jataay bii ñu ma fi jox cër bi ma jox maa ngi ñaan ci barki borom cér bi yàlla dimbale ma ba bu ma ci bew bu ma ci fuuy bu ma yaakaar ne ak pal la li ma doon te sama borom def ko ci man mu wóor man mi ngi sama dënn bii mooy bëgg sëñ Tuubaa di taalibe yàlla na sax ci man yàlla nañ ko àndandoo liggéey sëñ ba am ngërëm maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di delloo gërëmaat sëñ maam sëriñ Mbakke di ko ñaanal di sàkk ci moom ñaan di ñaan sama borom bokk ñu nangul yàlla nañ daje ngërëmu sëñ Tuubaa allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ci taxawaay bu rafet bii ngeen taxaw sëriñ Babacar Faye mii woote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 أم أكسر مرقى أم أكسر